nga affaire vierge bi ngeen jël fan yi di ko waxtaanee bu ngeen ko arrêté wul gis nga bu ngeen arrêté wul waxtaanu vierge bi paaka bi dina réer te dina mujj ci ay loxo yu neexul borom mbóot yaa ngi commencé sulleeku su ngeen amee ay réglement de compte réglé leen ko ci seen biir te ngeen génnee ci xale bi ngeen xam ne day doog a am jëkkër elle n'a rien demandé de mal bàyyi leen xale bi mu istaabul mu sëy sëyam xale bu yarul a kenn xamalu ko lu ñaaw bàyyi leen jigéen ñi ngeen di undi seeni sutura te foofu fi fekk góor buy réclamer affaire de vierge rek ah gis nga na góor gu doyalul mën na laa sosal lu ne attal na laa waxal lu ne moytul ma yal na yàlla musal leen yéen jigéen ñi ci góor gu la takk te doyalul xale bi nag da ngaa def nga erreur boo xam ne doo toog di nga ko réccu giir gi dund yow mi la dugal ci kii di Cheikh Yérim affaire de vierge bii bu ma ci génnaatee ah su ma ñëwaatee dinaa wax de bàyyi leen affaire de vierge